Heavy Waves.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 liggéeykat la woon ca béréb ba dal di koy torturé ba maara dee taali jëf ju ñaaw jooju bi ko askan wi gisee yëkkati na xolu képp koy senegale ma ni xaw tuut la xewoon ca États-Unis te ñu defoon ko George Floyd xew fii ci senegale bi ñu def jëf ju ñaaw jooju nag mu ngi wuyoo ci turu Ibrahima Fall moom daal toroxal lañ ko def ci biir réewam ci biir vidéo bi nga gis ñaari chinois ak benn sénégalais bi ko doon toroxal dem na ba benn chinois bi jël tànkam dëgg ko ci baat yee ay kay mbir moomu nag nee ñu nii la demee sénégalais boobu di chauffeur ci bérébu liggéeykaay bi nee ñu ab affaire parabrise bu toj moo indi mbir mi ndax ba parabrise bi tojee dañ ko mise à pied ci ñaari fan naka noonu nag ci la ne gaa yi dañoo juum ndax moom deful tinul dal di contester décision bi bi amee nag ci la ñëwee expliqué ko patron bi patron bi ne ko waroo wax may wax <laughs> mbete yàlla ñu nan deetawaay patron bi dal di koy mise à jour lu toll ci juróom-ñaari fan bi loolu amee na ci la chauffeuru camion bi dal di fippu ne ko duma fi jógee te joxooma kayit buy fir ma yóbbu ko dem déclaré ko ca inspection du travail ci noonu patron bi lank ba tëdd ci naaj bi ci la waa ji demee inspection du travail dal di expliquer lépp li mu demee inspection di travail dal di koy jox dëgg ne ko laggal dellu ci sa bérébu liggéeykaay sa waay bi mu ñëwee ah ci la mbir ma tàmbalee ñu dal di koy bëgg a jox ab xaalis bu toll ci cent trent mille tegal ko ci ab kayit bu mu war a signé sa waay dal di ba tëdd ci naaj bi nee du signé lu mu xamul ci lañ ko dal di nguufaane dal di jatang dal di koy torturé li ci gën a doy war nag mooy bi ñu koy def jëf ju ñaaw jooju te ñaari chinois yi di ko ko def ab sénégalais ni moom moo taxaw doon leen ci jàppale mais c'est honte ma ne loolu de yàgg na ci réew mi njaayum jaam sax sénégalais yi ñoo doon jàppale nasaraan yi fi mu ne ñoom ñëpp teg nañ leen loxo ma ne na yoon def liggéeyam de réew mi soppeeku na moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca Kolda romb na doy waar ab élève bu jigéen dal ne ñu moo fa seeti woon ab copain bu góor bi mu demee fekk fa copain bu góor bi muy génnal waaye fekk na fa ñaari xaritu copain ya waaye xaritu copain ya def moo jéggi dayo de ndax bi ndaw si yegsee dañu ko jàpp tëj ko ci néeg dal di koy violé ay waay xale yi toog leen ci seen i pooji nday dëgg du rombi bi moo taxit yaayu xale bu jigéen bi bu mu yegee lu ni mel dafa dem porter plainte ca commissariat bu Kolda ci la ñu tegee loxo MC ak FEMD ñoom ñaar ñëpp di ay élèves seconde boo leen yemoon ci bigg kay lii du leen dal enquêteurs yi ci mujj teeg indi ab gynécologue mu xool xale bi bi mu ko xoolee gis ne jaar nañ fa ci lu yàggul dara ñaari élèves yi nag bi leen enquêteurs yi gësamee li ñu wax a jéggi dayoo ñe ñu dëgg la ñoom ñoo séquestré xale bi dugal ci néeg waaye yegguñu ci kam kenn ki ne moom baaraamam dong la utilisé eh, astafurlah ka ca des ne deful lenn lu dul foon ay waay cay waay xale yi réew mi <laughs> man daal je suis peur ay waay xale xale xale yoo xam ni ñoo xoor njaay ñu xam jigéen ñoo xoor njaay xale yi xam jigéen moo tax euh, li xeet ne ci réew mi kenn mënu ko wax mu dooroon seen xibaaru bës dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru bës